tudd kon lu am solo lu am maanaa alquran nekkul mbindeef nekkul loo xam ne lii dafa sotu nekkul loo xam ne itam dafa am yemukaay nga teewlu loolu lépp kon yaa ngi déeyaaleeg suñu borom yaa ngi taxaw ci kanamam di wax ay waxam waxtu woo xamee ne jeexal nga faatiha ji ak taar wi rukkoo bi ngay ni ngay sëggee da ngay wane ne damm nga sa bopp ci kanam màggu yàlla ji nga teew loolu le fas ko ni nga jàpp ci sa ñaari bëti woom na nga fas ak toraxlu toraxlu boobu nga fiy fas boo waatee ba taxaw boo këppee sa jë dara du xarab ci fab li gën a tedd ci nit ki te mooy kanam gi bi bakkan bi mu këpp ko ci suuf li gën a suufee li nga xam ne ci la nit ñi dëgg du dara lu dul toraxlu da ngay wane ne wàcc nga ngir seede sa mag borom wane ne yow mii doo dara ta suuf si ci nga jëm nga siggi ba ak maanaam ba jëfi julli yëpp jeex dafa ruux ji moo di teewlu bi nga war a teewlu ne yaa ngi taxaw ci kanam rabbul izzati azza wa jalla nga seede loolu ci sa xol te bañ koo bàyyi bul dellu mukk sax say xalaat ci àdduna bis boo xam ne nit ki dafa jekki woon waxtu wu ko neexee mu ngi xalaat mbiri àddunaam ba julli jot du ko mën mukk nit ki daf koy war a tàmm ci fudul julli fa man la fa man yafaluhu fi xayri salaati la yafaluhu fi salaati képp koo xam ne doo jéem a teewlu ci lu dul julli bu julli ñëwee it doo mën a teewlu nee ñu sallallahu taala wa sallam mës na wax saxaaba yooyu nee leen ku ci mën a julli ba àggale te sa xel bu dem mukk ci àdduna dara dara dara jëm ci àdduna riwaay yu bare ñu ne ali nabi talib ñii ne abubakrin siddiq radiallahu anhuma julli ba àggale ñii wax ne lam leen digoon ay xar la géttu xar ñu ne gëléem la ñaari gëléem la mu leen da ngeen ci fab benn ñenn ñu ne dafa kenn ci bi mu jullee ba noppi muy abubakrin wala muy alin bi mu demee ba ci digg bay bëgg a mën dafa ne waaw ñaari gëléem xelam dafa ne ñaari gëléem yi bu mu ma ci war a jox kon euh, xelam dem na ci àdduna ñii ne déedéet dafa wax ne man ña yan buum laay yóbboo xar yi ndax mii ne guñu ma loolu itam dafa wone ne rek jafe na waaye doomu aadama loolu maanaam li ñu tuddee apprentissage la njàng la moo xam ne nit ki daf ko war a def ci xolam balay jullee ñëw bu julli ñëwee itam ndax nit ki julli gi ba mu tàmbalee ba ba muy sëlmal fépp foo fi xamee ne xelam génn na ci loolu xelam dem na ci mbiri àdduna rek booba euh, nit ki duñ ko fay loolu ci diggante bi kon bu fekkee ne bu mu kabaree mu ngi xalaat euh, mbiri dépense am wala bor bu mu amee wala ku mu jotee loon dara booba mu sëlmal julli ba du ci am dara loolu moo tax alayhi salaatu wasalaam ne na xam doomu aadama dina julli ba noppi te duñ ko bindal sax genn wàll bi duñ ko bindal sax kaar ba duñ ko bindal sax fukkeel ba loolu wane na ne ñaari nit mën nañoo bokk julli ñaari rakka fii ñu fay ko ci yool bu toll ne diggante asamaan ak suuf kii du ci am dara mu am ci mbugal ndax euh, xalaat yooyu bu fekkee nit ci teewlu ko daf ci dul am dara ci pay bu fekkee nag melaw zahir nag daf koo wàññi ni ki tey ni mu war a këppi jéem na mu fa war a defee ci daal ak tumaaniina maanaam yàggaay ba mu fa war a yàgge dafa cof rek na ganaar guy gës kooku moom sàcc la sàcc ci julli nag sàcc ci àlal la ko gën a dagan kooku moom mbugal la cay am bu ñu seetee daa nga gis ne julli nee ñu azamul ibadati mooy jaamu yëpp jaamu gi ci gën a màgg mooy julli loolu moo tax ñu ne yowmal qiyam nit ci bu ñu indee jëfam mu toll ne ay angaar itam bala ñuy seet dara julli la ñuy njëkk a seet su fekkee ne sellal na julli ñu seet li ci def lépp lu ci baax ñu nangu ko su fekkee ne nag sellalul julli lu ñu seet daraam dañ koy taxañ xëpp ko ko ciy bët euh, sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nee na Muhammad euh, sallallahu taala alayhi wa sallam daana toog di waxtaan ak ñun waaye bu waxtu julli jotee rek day mel ne xamatuñu dafay daal di def ne bërët rek wan nu gannaaw dootuñu faale mel ne xamatuñu daal di jublu ci julli gi dafay mat di teewlu balay jot sax ndax neenu yowmal qiyaam dana am gaa yoo xam ne bu ñu dajee ci béréb ba seeni xar kanam day leere ni biddiw ñu leen laajee ana lan moo leen jox leer gi ñu ne nun day bu masaan dégg nodd bi rek waaxu nañ wuti jàkka ja ñeneen ñëw seeni xar kanam mel ne weer wu mag ci guddi fukki fan ak ñeent bu ñu leen laajee lu ko waral dañu ne nun daal bu ñu daan dañu daan jàpp di xaru nag waxtu wi fekk waxtu wi jotagul ñu jàpp di ko nekk ñi ñëw seen xar kanam mel ni jant bi ci leeraay bi ñu leen laajee lu mu ngeen daan jëfee dañu leen nun nodd gaa nga nu daan fekk ci biir jàkka ja te dañu daan teewlu kon julli bokk na ci yi nga xam ne mooy yu gën a màgg ci lislaam julli la ñuy seete fii jullit la fii du jullit te julli nga manqué ci dara lim la mën a lor amul dara leneen la ko mën lor am na téere bu ñuy wax tuhfatul mardiya wax nañ ci ne euh, Moussa alayhi salaatu wasalaam benn jigéen dafa mës ñëw fekk ko ci néegam ne ko man de waay damaa def lu bon dégg nga ndax daal xaw ma sax suñu dana ma a baal li ma def wala déet mu ne ko li nga def lan la mu ne ko dama moy ba noppi rey doom ji yonent yàlla Moussa tiit daw génn néeg bi ne ndax defe ne xëy na léegi mbugal wàcc asamaan boole leen ci ñoom ñaar bi bi mu dàqee jigéen ji ba mu dem suñu borom dal di koy wax ci wax yu ne ko yow de li nga def lu rëy la xanaa xamuloo ne ne kooku li mu def lépp bàyyi jullee ko gën a bon te bis bu ne ngay dajeet ñu bàyyi julli te du ma wàcc mbugal lakk leen boole la ca yonent yàlla Moussa dal di tuub woowaat ko mu ne ko déedéet da nga ko war a xamal yoon boo ko xamalee yoon xëy na dina ko bàyyi waaye bul ko daw léegi nit bu ne dikkalee ci jaaxleem da nga war a seet mbiram ndax ci dem ba jàjju ba ragal ngir li mu jëf parce que yéenee génn di laaj ku ko ci tane kooku bu ñëwee nga gën koo dolli tiit yow dafa mel ne euh, tu nasiru wala wala tu basiru suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam defe ne euh, basiru wala tu nasiru nit ñi da ngeen leen di xemmem loolu lislaam waaye bu leen leen ko diisalal di leen dàq loolu moo tax euh, julli سم بروم دا فني فخلف من بعدهم خلف عضاء الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الغي خورلا ني ابتين بو نيك سي سفرا ني نانيو ني باي جولي رك ño cey dem غا ني سفرا سي بوبم دا فاي مسلو سي خور وولا خور وو سي بوبم تينا nga ci bo xur wa ci boppam day muslu ca teen ba teen boobale jaana nga ca joo xam moom itam dafay muslu ci moom te ki nga xam ne bàyyi na julli ak ki nga xam ne dafa toppatoo ba am xam-xam ba noppi di def lu ko neex ñoom ñaar la ñu ne ñooy jëm ca biiru jaan ja ah, léegi kon julli war na noo xam fan lañ ko teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ndax kenn ci yéen su amoon ak dex ci bunt néegam bis bu nekk mu sangu ca juróomi yoon ndax tilim dana des ak moom ci moom ñu ne ko déedéet mu ne leen julli juróom noonu la demee inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar doomu aadama waxtu woo xamee ne jox na julli xàqam nu bo day jóge ci julli ga mel ni ko ndeyam jure woon ci ñàkk bàkkaar ndax julli itam dafay tax dootu def lu bon dootu def lu bon dootu neex ci xolam te lu baax rek mooy neex ci xolam julli nag bala nga koy mën a sellal faw sa biir bi nga lekk ci lu dagan walla sa yaram bi nga sol ci lu dagan ndax lu xaraam dafay ñoddi lu xaraam bépp lekk gu lewul day xëcc bàkkaar nee ñu kul ma chita tafaal mislahu wa xaalilan man chita taxdu shaklah bu la boo dee def lu la neex